Zoya mama udah bee Zoya mama udah Mame Maodo biir Ndakaar Zawiya Tiwaawan ëmb leer bi mu tasiw ko aw ñoñam yéen a iya Al maktum TV yi nga xam ne nit ñi dañ koy naxante ci seen biir wala ko xam ne daf doon def lu bon di agressé wala di sàcc bu demee ba koy tuub mboolem ku mas alalam mboolem ku mas agressé day ma maanaam day jël lépp delloo ko tuubal ko ko te tuubal ko yàlla. Hmm. te mbokk yi xool leen adduna bi da ngay gis koo xam ne tey mi ngi sàcc ay millions di ci dund. addunaam lépp di dox muy noos moom daal mi ngi lépp loo xam ne teraanga rek mi koy am. bokk na ci bu dee góor ñi lañ la ñuy njëkk a jàppee teraanga mooy takk soxna si jongam. Hmm. daal dem takk soxna wutal ko dëkk fu dëkkuwaay bu rafet. tàmbalee wut oto bu rafet. te xoolal àdduna bi rek ñu jekki-jekki ndakate yoon mi ñu la doon topp ne la ràpp ci kaso bi buñ la tëjee mu mel na mësoo noos kon ana kaso bi yàlla ba kon ana kaso bi yàlla ba allati tattaliu ala al afida innaha alayhim musada fi amadin mumaddada kaso bi yàlla boobee nga xam ne safara ba fa nekk day lakk xool yi xool yi lay lakk yàlla nee na ña nekk ca biir dañ leen di yeew ci ay potoy safara suude leen fa safara wa di leen lakk te Serigne Touba wax na feneen ne ñi nga xam ne dañuy jël alali jàmbur di ko lekk bu ëllëgee yow man xiyaam seen i biir day neew wi ba mel na ay pale te dara nekkul ci biir ya lu dul ay jaani ñàngoor ak i jiit ñuy matt di leen fitnaal di leen sonal nee na seen xet day xeeñ mi nga ko wax ci jëwëru nafis nee na xet ga day xeeñ bay sonal waa safara ñooñee seenu xet day xeeñ bay sonal waa safara seenu xet day xeeñ bay sonal waa safara yàlla nañ si yàlla musal ñi nga xam ne dañuy jël alali jàmbur yi di ko lekk ci lu dul yoon ak wax na ko it ci système bi nga xam ne moo xew léegi maanaam jekki-jekki rek mel na man kaalawu woo nit ñi ne leen dama leen di yóbbu ci àjjanaak yoonu yàlla moom daal moom daal affaire diine affaire religion laa incarné ba am si mbooloo ñuy liggéey di ma jox may lekk seen alal ja te xamaluma leen allif xamaluma leen xaala xamaluma leen xiila di leen nax rek njabar leen wala lu man di xew hmm. Serigne Touba nee na même àtte ba ëllëg yowmal xiyaam ñooy gën a sonn ci waa safara <laughs> ëllëg yowmal xiyaam ñooy gën a sonn ci waa safara te lu mu bind la hmm. mooy ñi nga xam ne dañuy dund ci seen diine hmm. da koo bind kon loolu ma mat a bàyyi xel la te wax yi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon ki nga dafa jël alali jàmbur buy tuub na delloo alal ja bu fekkee ne lu mu jëloon la na ko delloo am mm. bu mu doon rek na ko delloo bu dee lu mu leboon na ko fay jamono yi tey nag koo lebal ngay dund du la fay nga faatu du la fay <laughs> looloo fi am léegi ngay dund du fay nga du la fay looloo am waaw te loolu xam nañ ci dara ay nit ñoo xam ne séqoon nañoo nit bor ba kookee génn àdduna ñu dem ba ca ñoom weddi wuñ ko waaye fas yéene wuñ koo fay weddi wuñ ko ne ameel nañ ko bor waaye dañuy jekki-jekki fas yéene wuñ koo fay ba noonu nga koy mujj bàyyi te bor boobu nag ala kulli xaalin da nga ko fa da ko fay moo tax yonent bi salaa sallam ne li ngeen séq na ngeen ko fayante ndax foofee ñu jëm amul dërëm amul diinaar li ci alal na ngeen ko fayante ndax ñu jëm amul dërëm amul diinaar kon mu ne am wàllal ah rawlan nag mooy yi nga xam ne nag mooy ay bii dox ci suñu diggante xasante yi jëwante yi ŋàññante yi tamante dëmm yi waxante lu bon yooyu noonu nga xam ne mooy yi am ayibante la yi yooyu yépp mu ne nag képp koo xam ne waxoon nga ko lu bon da dem ne ko baal ma xaq looloo tax wolof li ñuy def baalante xaq yi lu baax la waaye léeg-léeg nag am na tooñaange yoo xam ne tase nit ki jouru tabaski rek wala jouru korite rek ne ko baal ma àq rek du ko faj de dafa am yoo xam ne dafa gën a sérieux loolu dafa am loo xam ne da nga koy istixlaal dafa am yoo xam ne da koy nëbb jërul nga koy tudd ni ki aw jëw lu dul ne ka ngay baalu moo la ne loo ma def jër waaye am na yoo xam ne nag moom faaw nga ne nit ki kat maa la defoon nàngam nit ki maa jëloon sa nàngam ndax mën naa am la ko jëloon moom maa ngi koy metti ma ngay wër àq ja pour jot ko te jotagu ci wallaay wallaay mën naa am na nga ko defoon maa ngi koy metti xam na ne am na ko defoon dara ci ak njabootam xamuñ kan la dégg nga ma ko doon wër kooku da nga ko man la woon maa defoon loolee. Mm. nga xam ne metti woon na la baal ma. Mm. bu dee loo xam ne nag nit ki daf koo def teg ñu ca lu mel ne ab jëw mën naa dem ne ko baal ma ak ci lépp loo xam ne mas naa koo teg ci sa der bu fekkee ne ñoo xam ne nag dañoo séqoon ci seen biir ay xiiroo ko yoo waxante. comme léegi ni mu xe ni mu xewee nga xam ne nit ñi dangay def sa vidéo <coughs> xaskee def sa vidéo mu ne fees ñëpp gis ko mm. bu ngeen demee bay tuub kenn ku nekk dangay ngay jéggulu sa morom baalu ko te bañ saa delloo te def effort lépp loo xam ne dafa des ci internet bi te nga man ca dara mm. dindi ko nga dindi ko mm. te nga jéem a jaaraat fu ëpp fa nga jaaroon ba ngay def lu bon loolee ngir dindi loolee bu dee band la woon defaat yi band fayal khalis jema la effacer lolé ñaanal nit ñi sakul képp ko xamni yalla yalwaanal képp ko xam dafa yor wax ji ñaaw jéem dindi ko dañ ko tassar nga waslu ak la ci dess nga bàyyee ko borom bi subhanahu wa taala kon alal joo jël da nga koy delloo ŋàññi boo ŋàññoon da nga koy istihlal moy balu ak léegi nak bu fekkee nak alal ji nga jëlon nak borom dafa faatu niki lu waja sa sàccoon wala mu agresser ko won wala mu jëlon ko ab jëlin bo xam jaarutoon yoon léegi lan moy xew aha Serigne Touba nee na bu fekkee ne borom alal ji daf faatu wala ka nga tooñoon daf faatu day dem ci ay way doon noonu mm. ñi nga xam ne ñoo ko doon doon bu fekkee ne misaal dafa jëlal 1000 dollars am bu ko neexee mën naa toppatoo 1000 dollars rek dem jël dem delloo lii kat maa ko séqoon ak seen baay mm-hmm. wala maa ko séqoon ak seen yaay wala seen mag wala soxna si wala nangam ak nangam sans mm-hmm. départ daal di joxe loolee daal leen di jégglu wala bu ko fayee sax bu ko neexee mën na leen a bañ a jégglu ndax loolu rek lañ séqoo lañ séqoon mu daal di koy fay bu fekkee ne nag loo xam ne moom nekkul loo xam ne lañ mën a fay way doon la ni ki loo xam ne dafa xew ci derba lu mu waxoon ci derba bu boobaa na rafetal digganteem ak ña nga xam ne ñoom dafa kookee bàyyi bi tey di jéem di def tuyaaba di jéem di def lu baax ndax am na yoo xam ne moom nit ki bu demee rek mënatul kaa ndax yàlla bu fekkee ne dangaa tooñ sàmba wala nga tooñ kumba hmm. taxaw fële julli téeméer ràkk ne yàlla baal ma li ma tooñ sàmba wala li ma tooñ kumba yàlla danaa la sama yoon nekku ci demal ci sàmba ma nga tooñal <laughs> wala kumba ma nga tooñal nga ne ko mu baal la bu la baalee ma baal la waaw hmm. su dul loolu nag defoo jaaroo foofu ba sàmba moomee rëcc la wala hmm. kumba moomee rëcc la ëllëg yow man xiyaam bu ngeen fa dajee dana na ràtt sa mbubb te dana xam ne yaa ko tooñal te foofu nag ñëppay soxor moom waaw lu dul ñaar ña yàlla woo proposé leen laaj leen ne leen ndax man ngaa baax ci sa moroom mii baal ko <coughs> ma wecceel leen ko àjj na bu boobaa moom dana gis lu ko gënal fayeeku li muy fayeeku ndax li muy fayeeku bëggul dara lu dul loo xam ne daf koy yokkee crédit wallaay kon bu boobaa na ko na ko bàyyi xel kon na jël alal ja delloo ko tooñaange la na ko delloo na baalu àq ka nga xam ne moom la amee àq ja te na dem delloo waaye bu loolu weesoo maanaam bu fekkee ne nag ñamay ñamay ñafi way doon yi xamu leen xamul ay way doon doom bu fekkee ne way doon doom yi nekkuñu fa lan lay def bu boobaa mën naa jël bu fekkee ne alal la mu saraxeel ko ko bu fekkee ne alal la mu saraxeel ko ko te bu ko ko saraxeelee ba noppi ginnaaw bi ay way doon doom feeñ moom sarax ba na ko jël jàppee ko ab saraxam te fay way doon de te fay way doon de sarax ba moom mu jël ko du ne leen déedéet seen papa yore loon naa ko nangam kat waaye dama leen a gisutoon saraxe naa ko déedéet demal fay bor ba comme que lay gis nga leen sarax ba moom du la rëcc ci yaa yaa moom sab sarax léegi yaa moom sab sarax ak nu mu bari bari da leen di da ngay fay ñooñee ndax ab bor la boo xam ne da koy jàppee bu fekkoon da ngaa yore loon kenn bor ginaaw bi mu réer la nga saraxe ko ginnaaw bi ka nga yore leen bor ba nga gisaat ko da nga koy koy fay ndax aji doon gi ne mooy teewal ki muy doon ci jëmm ci lépp loo xam ne lu mu ko war a représenté la ca nanga nga xam ne noon la ko charia digalee bu fekkee ne nag dafa nekk loo xam ne ay tooñaange la yoo xam ne ay saaga la wala mu nekkoon ay jëw wala mu nekkoon ay ŋàññi na ko baalu bu dee dund bu dundul na ko liggéeyal nan la koy liggéeyalee yokk ay tuyaabaam moom moom yokk ay jaamu yàlla waa ji présente waa ji nga xam ne moo fi nekk di aji tooñ bi te kam tooñoon dem na moom lu mu doon jaamu yàlla be na ko yokk ndax xamul ba xam yàlla daf koy tinul ci waa ji baal ko ndax waa ji moom mënatu koo baal wala yàlla day jël moom lu baax la mu doon def fayee ko kële mu ñàkk yonte bi salaa sallam dafa mas a toog ci jotaay bu mu jàgg mu daal ne ndax xam ngeen ki perte ñi ne ko ki perte mooy ki jaay amut wala ki yaakaaroon dara amut wala ki ñàkkum njabootam ku nekk wax na nga ko waxee mu ne kooku pertu waaye ki perte dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne ëllëg dafa dikk yowmal xiyaam julleem baax wooram baax topp ay waajuram aj màkka def lépp yiw bari tuyaaba lool waaye ñàkk ko dugg safara wal iyaazu billah mel na dañ ne ko lool nan la mën a nekkee mu ne parce que moom sàmm toon digganteem ak doomu aadama yi tooñaa nga yee bari kenn ku nekk dikk poñe ràtt ne ko fay ma mu jël jox kee juróom jël kee jox fukk jël kee jox ñaar fukk jël kee dem ba mu jaag téeméer ya mu andi woon jeex tàkk te laa yanfau maalun wa laa banuun illa man ata allaha bi qalbin salim te képp koo xam ne da ngaa dikk ak ay tooñaange yi nga séq ak nit ñi kooku bokkul ci ñi nga xam ne ata allaha bi qalbin salim kooku xol bu tilim la ëndaaleel yàlla benn question laa war dégg nga incha allah kon léegi waaw kon kooku day fay di fay bu demee ba jeexal tàkk nag lan mooy des bu demee ba jeexal tàkk léegi nag mu am ñeneen ñu ñëw ñoo xam ne ba tey ñooñu war nañ koo fayee ko amul nu mu leen fay ah imaginer ci àdduna bi ku yoroon bor di ko fay ba jeex lan ngay def liggéey waat te foofu amul liggéey léegi nag bu boobaa ñooñee dikk di fayee ko lu bon lañu amoon moom la ñuy jël di ko xëpp waa ji di ko xëcc xëpp waa ji sëñ Tuubaa nee na xam xamluhu dalu xam mu mujj ginnaaw ga dis gann mu mujj ginnaaw nga diis gan na mu mujj ci jëf yi lu bon ñeneen yàlla boole ko ci waa safara yàlla nañ si yàlla musal lu bon ñeneen yàlla dugal ko ci waa safara kon ah, mu ne bu fekkee ne yooyu dafa am tooñ na ñu baree baree bare ba àq ya bari na mu ne na yokk sa jaamu yàlla ndax man naa am ndax lee la wax mën naa am laallahu yajid la wax su lay laallahu mën naa am سنت بعد في من مم ورنا له بس مم من نعم يجد شيئا يودي حق كلهم دون من نعم لو بعه لم ندف مو أم جدا هم ندنا فاي نح أكم يوم يلا أكم أنا بيزا بخم نمطون ين خم أك جنة كلامي بيج يلا رك أكم خم كم خم خاص نان لطون كم خم جون نان لطون خاص يجينا ميت نان موي خاص جامبر بوجين سبكار غيري لا كبا إيريلا آه كبا إيريلا ñun wolof nag ñooy gis jigéen ji so pantalon ñu ne day mooy yàlla waaw ñun wolof ñooy doxalee noonu maanaam ku ñu gis mu sol rek ñu àtte ko wax ci moom ne moom def katu naa te yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo boole ci kabaa'ir yi juróom xool leen bàkkaar yi àdduna bi ni mu baree eh. àdduna bi ni mu baree juróom-ñaar yi si gën a ngande xasful hmm. moxsanaatil muminaati xaafilaat boog xas jàmbur bu jigéen hmm. xas jàmbur bu jigéen hmm. bokk ci mm-hmm. kon loolu lu lu lu mag a bàyyi xel la xas te te àtteb xas mooy lan caw ka xase juróom ñett fukki am na ku mas xasum néew ci jamono imaam Maalik ab néew la xas néew mm-hmm. yàlla néew ba mu xasee rek dañ ko caa juróom-ñetti fukki waaw ndax ndax dafay dafay sang néew ba ba yegg ci ab cër daal ne ah kii de kum yàgg mooy yàlla la far kooku yàlla def mu nekkoon waliyatullah ku baax loxo ba kale fa kole fa mm-hmm. bañ woo imaam Malik imaam Malik moo àtte na ko waxal la nga waxoon mu dellu ci mu doog koo bàyyi mu ne nañ ko caw juróom-ñett fukki at te am néew la xas ana kon ñun ñii xas suñu mbokk julli ji dem jàkka yi di julli waxtu yu juróom mm-hmm. kon nañ bàyyi xel kon suñ tubaab ne laallahu yajid shay'an yuwaddi xaqa kullihim bihi mustaghfiran te ca yem de kookee nga moom la tooñoon ba mu dem nay jaamu yàlla waaye na koy sàkku njéggal léegi day nekk loo xam ne is obligated to you obligatoirement dangaa war di di ko sàkku njéggal kon léegi yaa ngi koy liggéeyal di ko sàkku njéggal di ñaan yàlla mu jéggal ko di ñaan yàlla mu baal ko mën naa am yàlla dem a dem kon liñ la doon yëndu sinaasal ni wax foofu kon mu fallis yàlla nañu si yàlla musal mm. jaamu yàlla sonn mm. waaye la nga doon sonn ndakate yaa ngi koy sonnal ñeneen moo nit ñi nañ warmaalante bu baax ndax kenn xamul ku lay jariñ kenn ku nekk ci ñun wóor na la bis bu buñ la dugalee ci kees ba imaam taxaw di la ñaanal am na koo xam ne mosu leen a joxante loxo te dana fekke sab sab jotaay di la ñaanal moo tax koo dajal war maa am na koo xam ne benn yoon ngeen ma sa séq fàtte nga ko fàtte na la nga dem mu dem te bis buñ lay jullee moom dana fekke jotaay ba imaam yii léeg leen ñu jullee koo xam ne xamuñu ko sa aadama xamuñu ko ca awa keroog lañ leen ko mës a andil yàlla bindoon na ne bis diw mii barab sàngam lay faatoo ci suufu sàngam wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut sàngam moo ko jullee zaw ya mam Maodo bee Ndakaar zaw ya ëmb leer bi mu tasiw ko aw ñoñam yéen a seetaan